ne mango la ñuy vous waaw moom tey mango mhm. parce que saison mango lañ nekk. donc comme ni ma leen ko waxee woon sànq en reportage benn euh, question ci affaire mango aussi alors du ah côté de la régie c'est ok de élément ndeela bi bi mu def tey si wàllu mango ñu dem xool ko après d'elle sur le plateau si c'est ok alors mais en attendant euh, vidéo bi di ñëw euh, ndeela lan nga ñu mën wax ci astuces euh, truc et astuce par rapport à utilisation mango C'est le vidéo bi d'accord donc comme le temps que vidéo bi di avec mangue mom comme euh, comme j'ai dit tout à l'heure rek ñu ngi ci saison wu mangue jamono ji bëri na torop ci jaaykatu fruit yi bëri na foofu et que li li ci am solo dal li ñu war xam ci mangue moy fruit la bo xamné c'est naturellement sucré mhm. fruit la bu neex jarul doolu sucre jarul doolu sucre nañu xool élément bi kon ne dellu si waat ndeela Aïcha on y va avec la régie alors tey téléspectateurs et auditeurs u GT Télé Global Télévision tay lii laa leen andiloon muy manque donc tay maa ngi fii nii ci côté Oryza Maristes bi ci benn jaaykatu fruit boo xam ne yàgg na fi torop maa ngi si posé ko ay question pour mu wax ma euh, naka lan la xam ci mango puisque ci saison mango lañ nekk dinañu gën a yaatal expliquer ñu tout en détail sa nan noonu donc sëñ bi ñu ngi lay nuyu ah, ça va bien léegi sëñ bi euh, mango yi ban moo ciy gën a saf suukar. mango yëpp bi ma gis bu gën a saf suukar daa mel ni mango ko moo gën a neex. waaw moo gën a neex mango kongo. mais uh, boo boo tamit boobu moo gën a forox wala ça dépend. mango fam bi. non non mango ko moo gën a neex lu ci topp mango kenn. mooy bii nii. mango kenn bi waaw. mango kenn bi dafa neex. waaw. mango kekk day xaw a forox tuuti. waaw mango ñoree day neex moom tamit. boobu day neex. yoroo léegi mango bi fan lay jugee fan lay jugee mango bi. mango bi. fan lay lay jóg. Casamance. Ah, d' ñoo ngi lay jaajëfal di la remercier si disponibilité bi ak temps donc euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ça va alhamdulilah. sax sama client la. Alors, nous avons ñëw di alors période mango là, et puis mango yi bëri sur le marché mais aussi euh, façon mango yi am hein. il y a ko ah. euh, kent mango pomme. bon mango vert ça se voit de moins en mm, mm, moins mm. peut-être mango papaye vous la si gënal ça. man daal na saf suukar rek. <laughs> <laughs> na saf suukar non nee la dama lay bàyyi laaj bu Cefal fan maa ko bokk gënal. man am na aussi euh, jeeg non ma gàtt mooy bu gàtt bi. <laughs> yow xam maa yëpp. Euh, maman wax rek jeeg bu gàtt je pense bu bu gàtt yow nga. man daal man daal maa ngi buuj daal laa xam. maa ngi buuj mooy bi ngay tee di mocc rek. di bés muy ñëw rek. instant bi daal mango kent moo. non non man man weekend bi rek Sébikotane laa demoon foofu ah. fi ma nekk noonu ci toog rek mango yi wadd. waaw foofu moom bëri na mango. Mm. Sébikotane à côté Pout na ah, mango yooyu moom bëri na mango. waaw mm. ah. ba ba ngay yegg côté boobu yëpp bëri na mm-hmm. mango moom. Mm-hmm. vraiment am na mango yu ne waaw yu foofu. Mm-hmm. moom moom d'après li ma ko li ma ko laaj noonu tegul élément bi yëpp. mais nee na ma ni que mango jamono ji moo gën a bëri ci marché bi. Mhm. moom lañ gën a bërile et que kilo bi ñu ngi koy jaay 700 francs moom lañ koy jaay bi ma ñëwee aussi di ko laajte fekk naa nit ñi di ñëw di jënd par 3 kilos par 2 kilos donc sénégalais dafa mel ni bëgg nañ mango bi et que nee na sucré na na neex na te Casamance say jóge foofu lañ koy jëlee. Mhm. mango pomme bi amu ko noonu parce que bii moo gën a tuuru si marché bi mais nee boobu moo gën a cher. boobu kilo bi ñu ngi koy jaay 1000 francs le kilo bii moo gën a yomb te mango moom liñ ci li ci am solo pour ñu xam ko mooy euh, fruit la boo xamante ne nii du la empêcher nga mën nga ci lekk ba doyal amul amul limite amul excès amul dara mën nga teg di dagg di lekk. ba doyal doo def dara waaw doo fër doo def dara. daa am heure de daa am heure bu baax. <laughs> bi mooy guddi gi. guddi gi ah. guddi gi nag yow di diw xarit la déranger. non guddi gi su fekkee da nga am ay problème mu ballonnement mën nga bañ mën nga ko mën nga ko teel a lekk nga bañ a bàyyi bay waaj a tëddi nga doog ko lekk. sinon mm-hmm. mën na la sonal. baax na aussi si digestion boo lekkee ba pare pour digérer. Mm-hmm. mën nga di ko mm-hmm. utiliser. te saf na suukar bëri na nutriments riche na aussi en glucides. riche na en glucides te euh, da am na ay apports nutritifs yu bëri yum lay andil ci sa yaram. Mhm. boo xëyee tout la journée boo ndekkee ba pare mun nga ci teg maa mango su fekkee da génn génn bu sori et bëgg nga loo xam ne fruit boo xam ne dina la mën a tenir. mën nga di ko lekk du la wàññi dara aussi. Mhm. te fruit bu neex a neex la parce que dafa dafa saf suukar daal. am na jus bi tamit. am na jus bi waaw mën nga ko def aussi ay salaat dañ koy def salaat mhm. dañ koy euh, boole ko ak ay avocat yooyu noonu. def ko genre entrée mën nga ko def wala nga jël ko dagg ko comme nii rek ci sur la photo dagg mm-hmm. dagg ko nii lekk ko dagg ko nii juste pour dessert mën nga ko def mm-hmm heure bu la neex daal noo ko sentir mun nga ko lekk amul danger noonu trop. d'accord te ça ñi nga xam ne dañuy yëngu ci euh, ci transformation euh, aussi bëri na lu ñuy jël mango bi def ko sous forme de de de de sirop concentré nga xam ne ça peut se conserver même bu ñu génnee ci période mango. Euh, am na aussi ñoo xamante ne dañ koy def séché en fait c'est-à-dire que dañ koy def par tranche mm-hmm. après séché ko def ko sous forme de séché day mel comme un peu comme chips yi en fait. si si mais chips mango lay nekk. dañ koy déshydraté gisoon naa élément mm-hmm. boobu. day ngay day am foo koy dugal genre ben matériel pour déshydrater ko dindi ndox bi bi ci nek après mo koy wowal ba def ko mu nek mangue séché mhm. amna aussi aussi euh, vinaigre sama djoumou wa Casamance war nañ xam lolu mën nañ ko transformer ba def ko genre vinaigrette dañ koy def ci ay ci ay bouteilles pour conservation bi après amna ñu koy ñëw diko ko indi Dakar diko ko jaay bëri na dal ay ay ay euh, utilisation yo ci mëna def pour transformer ko <laughs> tay mu jëriñu que ce soit si walu togg wala dessert wala transformation agroalimentaire wala leneen ak leneen. d' accord alors monsieur Fall ku wax euh, transformation hein, Sénégal peut-être mooy problème bi nga xamante ne. da koy rencontrer wala sax conservation laay wax. mooy problème bi ñuy am parfois pour transformer yenn produits euh, pour que mu gën a mën a yàgg comme jën par exemple. day am ñoo xam ba tuuroo moom da ngay ñëw rek dina. da ngay waaw voilà que ça soit euh, produit yi génnee si géej bi mais aussi produit yi nga xamante ne. comme euh, produits saisonniers comme mangue ak yeneen yi. waaw li nga wax ni euh, problème boobu nekk nekk problème boo xamante ni bu récurrent la ci Sénégal. Mhm. presque presque secteur d'activité boo dem rek. am na fa am na fa. Mhm. ndaxte tey jii boo duggee bi nii ñu nekkee ci pêche bi nii yenn saa yi jën yi bu tuuroo am na dëkk yoo xamante ni il faut ñu bazarder seen jën. Mhm. mais euh, li leen di woon arrangé moom mooy tey jii ñu am foo xamante ni ay chaîne de conservation lay doon. Mm-hmm. nga xam ne fii di nga fa mën a conserver produit bi pour ay quelque temps. moom moo nekk tamit ci agriculture bi ci mangue bi mangue bi gis nga bu tuuroo da ngay dem ba mujj gi da ngay gis. àll bi foo tourné mango yu. waxtu ngay gis mm-hmm. ñiy jaay dañuy dem ba mujj gi seen produit day pourrir ci seen i mm-hmm. donc chaîne de conservation yooyu dafa war a am. gis nga ko tey jii jaaykatu soble yi. problème boobu la ñuy jànkonteel jaaykatu ni ngi koy xatee eh, pomme bi mhm. ñu koy récolter tamit problème boobu la ñuy jànkonteel mhm. même élevage bi tamit loolu dafay am ndaxte tey jii même mi nga xamante ni dañu koy rat tey jii bu ñu amoon ay unité de conservation yu baax unité de mhm. transformation yu baax tey jii dina créer ay emploi dina tax ñi nga xamante ni ñu ngi doon xalaat génn dem feneen ndaxte da ngay wax xale mu ne tey ji ma demee Espagne damay béy mais tey ji mbéy moom nañu ko exploité Sénégal ñaata suuf moo fi nekk. Mm-hmm. d'accord mais duñ ko nangoo def fii nag. waaw mais euh, euh, euh, li ñu nit ki boo ko boo ko liggéeyloo balaa ñax ma fer. Mm-hmm. jox ko li mu moom. Mm-hmm. alors suñu temps bi euh, jeex na <laughs> merci beaucoup ndela. Euh, surtout truc astuce mango bi am solo bu baax baax parce que day baax euh, li nga xam ñu koy par plaisir mais nous xam aussi au-delà de lekk ko nak dafa neex ce que ça peut rapporter en termes de vitamines nutriments mm. entre autres alors ñu bàyyi la nga tàggatoo la ba semaine prochaine

ñi nga xamante ni ñoo ñu doon seetaan ak di ñu déglu. Mhm. surtout les autorités ba tax li nga xamante ni mooy cri de cœur sénégalais yëpp ñu jëm cee taxaw. ndax benn bakken bu di ci géej rek. Mhm. dafa rëy waxatuma la nag ay centaine de personnes yu dee ci géej. Mhm. te ba amagul ba léegi bañ a deuil national. di hmm. gën a metti mooy loolu amagul ba léegi ñu ne dañuy créé def deuil national. te tey jii seen i doom wala seen i kii ku ci duggoon ci oto oto bi accidenté. ñett dee ca ñu def deuil national. Mm. kon vraiment loolu ñu ngi leen koy sàkku bu baax. ñu gën a taxaw ci xale yi surtout jeunes yi ak femmes yi. Mm. ndax bu ñu demee tey ba jigéen ñi sax di dem ci immigration clandestine yore ay doom yoo xam ne ay tout tànk lañu. c'est catastrophique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fall. message et on espère que vous allez bien. Alors, Nyan, euh, merci beaucoup pour l'invité du jour et euh, on se voit la semaine. Non, on se voit demain, Inch'Allah. <laughs> on se voit demain, Inch'Allah. Donc, ah. je vais rendez-vous demain, Inch'Allah. Nous ah. mhm. remercier beaucoup, beaucoup, le fait que vous acceptez donc euh, di jox rendez-vous demain, rek Inshallah. alors Mame Gor euh, ñi nga xamante ñoo tamu di seetaan GTV aussi euh, ñu wax leen un message que après Bonjour Sénégal tay le reste de la journée pour des raisons d'entretien. am na programme bi lu si bëri loo xamante ne tey duñ ko mën seetaan malheureusement. waaw malheureusement y aura des perturbations. parce que mm-hmm. machine moom ak entretien ñoo ah, ñoo ànd surtout lu xam ne day jëm ci ay électricité ak mm-hmm, yooyu. bon mm-hmm. après bonjour Sénégal dina am ñu fi ñëw di def yenn entretien yi donc programme yi ci bëri dañ koy suspendre ba suba jàmm incha allah. ñu reprendre euh, ak bonjour Sénégal ak yëpp programme.